décision historique ah dàqal nest pas élection yi. xam nga euh, euh, dafa am na tubaab lu mu wax euphémisme euphémisme mooy euh, wax boo xam ne doo ko wax. da nga koy oyofal danga nga koy cof rek da nga koy oyofal waaw da nga koy <laughs> cof rek. bu ne dama dama annulé décret mobilisation. Mhm. ki <laughs> corps électoral bi. Mhm. <laughs> loolu moo nag élection amatul. donc mhm. élection bu amatul. donc dañuy seet beneen beneen pexe. donc dama dégg gars yi di di di di di di jéem a layal n'est-ce pas président de la République mais l'un dans l'autre pour mhm. euh, euh, lu garaaw la n'est-ce pas pour démocratie li am kenn mënu ko layal non non kenn mënu ko layal mhm. euh, mais am na ñoo xam ne rek dañu dëgër fit dañ koy mhm. layal <laughs> man dama dëgg des certains vraiment si plateau télévision ñu ma a layal n'est-ce pas président alors que président si boppam mënul layal boppam à plus forte raison nit layal ko parce que lu mu wax lu mu def vraiment c'est c'est c'est c'est dafa jég dayoo nous sommes dans une mais état de droit boobu daf ko salfaane parce que moom amul sañ-sañ laa wax constitution mayu ko sañ-sañ sax di reporter élection yi ah hmm. deuxièmement li assemblée nationale def di di di di def proposition de loi n'est-ce pas pour euh, toxal euh, modifier article yi mais amul si sansañ donc ñoom ay ay ay doole la ñuy teg puisque euh, en dehors doole boobu amatu am amatuñu lu ñu mun a ñu ñu laay la mm. comme am nañu les forces de défense et de sécurité foofu la ñu sukkandiku donc dañuy def coup de force et ensuite euh, gendarmerie euh, ak gendarmerie ak police yi taxaw ah di xeex n'est-ce pas disons ak population bi mais dama ne lii yëpp dañ ko tëgg pour man tëgg la. dañ ko waajoon dañ ko waajal te dañuy tëgg scénario bi. dama ne am na lu ñuy wax benn technique de manipulation en communication bu ñu tuddale PRS P bi mooy nit ki da ngay da ngay créer du toute pièce un problème alors que problème amul fenn xam nga da nga dégg ne mu ne am na crise mm-hmm. mais crise boobu moo ko créer ñoo ko créer ñoo ko sooxe mm-hmm. ñoom ak libéro yi voilà Karim Wade euh, bàyyi leen du du du jàll comme ça bu jàll mu introduire kii xaar ñu jokkoo les institutions ñoo ñoo ko tëgg donc euh, PRS boobu mooy da ngay tëgg mbir boo xam ne daal amul mooy paix bi da ngay créer benn problème bu bees boo xam ne amul fenn. mais boo créer problème boobu lan nga si xaarandi. réaction li ngay xaarandi mooy réaction. mooy mhm. PER bi. donc da nga gis nit ñi réagir nañu léegi nga walbatiku nga ne ñu man maa am solution bi. solution mhm. mooy dialogue bi. Hmm. xoolal ma lii rek <laughs> xoolal ma lii rek. mais li ngay expliqué nii moom ñoom ñoo créé problème bi xaar réaction bi ñu après problème bi saafara si léegi si dialogue bi la nekk c' est exactement. non vraiment affaire bu hmm. yéeme. moo tax euh, man damay reetaan rek bu ma xoolee yéen nii à la limite je me ki euh, mettre en place scénario bi euh, xelul màcc trop n'est-ce pas sur waa aayul euh, sur la mise en scène et deuxièmement ñu ñu ko ñu chargé tëgg mbir mi ñoom tamit vraiment aayuñu noonu l'un dans mm. ñu ngi foofu laa bëgg a jeexal ñu ngi fooye n'est-ce pas disons xel sénégalais yi wala mm-hmm. ñu koy fooye et à force ñu fooye nest pas xel sénégalais yi day gën a ubbee ubbeeku c'est-à-dire nit ñi Sénégal damay ne amatul Euh, citoyen boo xam ne da sa sa xel ubbeekul mhm, parce que à force ngay mhm. junjaaj ngay def yi nii nii di xool di di topp n'est-ce pas scénario yi finalement on devient tous des experts mhm. loolu moo am tey euh, moo tax même su fekkee ñoom def na loo xam ne daal lu baax la pour réew mi les gens vont réfléchir à deux fois est-ce que comme dañuy am Euh, disons euh, habitude nax nit ñi. est-ce que nekkul di naxaat n'est-ce pas Sénégal yi. donc foofu la ñu extrêmement grave dañu gis euh, monsieur monsieur PDS seen taxawaay ci mbir mi lépp ci ñoom la sookee ñoom ñoo ñu ko dugal commission d'enquête parlementaire bi proposition de loi bi PDS encore une lépp ci mbir Karim waaw parce que dama ne moom ak euh, euh, président de la dafa dafa ak euh, PDS ñoo sooxa mbir mi ñoo ko tëgg. Ah, ñoom ñaar la ñoom ñaar la. et boo nee sama xel dee dem le 23 juin 2011 bi le président. Abdoulaye Wade buggoon def lu ñu wax le quart bloquant ak le ticket présidentiel nit ñëpp dañ ñaaw njot ne daf ko doon def n'est-ce pas disons pour doomam Karim te à cause de ça dafa amoon manifestation amoon nañu ñu gaañu mm-hmm. parce que après les gens sont reçus au l'obélisque que am nañu si gaañu te c'est le même Karim Wade qui revient le 5 février n'est-ce pas pour tëgg lu ñu gisoon n'est-ce pas keroog à l'Assemblée nationale donc mbir mi boo xoolee les deux événements yoo xam ne traumatisants n'est-ce pas pour la République les deux événements traumatisants au cœur de ces événements là il y le PDS loolu mooy dëgg loolu mooy dëgg donc on se dit mais est-ce que nii dañuy bugg Sénégal dëggantaan parce que même su fekkee président de la République dafa dafa dafa dafa dafa ne Karim Wade jàppale ma comme ça man naa la jàppale mhm. mais waru ko nangoo parce que dafa waroon xalaat n'est-ce pas le peuple sénégalais déjà dañuy nekk si jaxare déjà dañuy nekk si ay problèmes yu bëree bëri tolo tolo bëri dund bi cher na cher boo xam ne jëg jëg na dayoo mais moom mu d'accord si ça veut dire quoi moi je me je m'interroge mhm. sur une chose est-ce que Karim bugg na Sénégal man dam koy damay damay damay ah bon loolu loolu damay sànni laaj boobu pourquoi nga sànni laaj boobu pourquoi mais sànni laaj boobu parce que euh, dama ne bu ma xoolee. Mhm. Euh, Karim Wade nu mu nu mu nu mu nu mu nu mu agiré. Mhm. distance bu mu am par rapport au peuple sénégalais. que les gens ne disent pas ne me disent pas oui il fut ministre oui il fut ministre. Mhm. mais ministre bi administration la woon. mais quand je dis vraiment le, contact direct. n'est-ce pas avec les populations Karim amu ko loolu mooy dëgg. donc koo xam ne daal amoo contact direct ak euh, disons ak askan est-ce que di nga am yërmande n'est-ce pas pour sa askan question la. donc bu ma jàngatee mbiru Karim Wade c'est cela donc on peut dire à la limite peut-être xëy na c'est pas son c'est pas son du du peut-être parce que il n'a pas eu ce contact il, mhm. il n'a pas eu ce contact comme les autres hommes politiques am nañu contact physique bi avec n'est-ce pas la population moom amul loolu man musuma gis Karim Wade ci benn chance ngeen tournée voilà ay tournée man musuma gis Karim Wade ci kii ko gis xaw ma am na loo déet mais man man musuma ko di def campagne di di kii voilà même quand ministre affaire si si dem man manifestation man musuma ko gis na donc koo xam ne daal yow amoo vécu boobu à la limite je me demande est-ce que di nga am yërmande n'est-ce pas pour sa pour sa population donc euh, moom depuis sept ans mu ngi fale Qatar mm -hmm. Qatar lay bind bataaxal moom mu ngi foofu daal mais Sénégal yi def nañu pendant ce temps am na libéraux yoo xam ne dañ ko gëm dañu gëm PDS dañu gëm ab Wade ñi ñiy xeex nest pa pas ñu xaar tànk tubéy n'est-ce pas si si bi gàcce ngaalaama ñooñu. Mhm. mais moom moom. non non non mënul am yërmande boobu des des na daal da nga gëm ne des na daal. parce que amul benn proximité. ak askan bi mhm, mhm. il faut que mu cultiver proximité boobu xëy na bu ko cultiver li li ko dal nii du ko dal. mais li li du ko nangu. mais li ñu nekk di def fi ñu ñoom est-ce du ñoom ñoo ci perdre. parce que finalement pousse nañ élection yi ndax na Karim bokk rek su bokkee sénégalais na lañ koy xoole boo gisee frustration bi nga xamante ne report bi indi na ko. waaw xam nga déjà boo jàngatee Karim euh, euh, mosoon naa ko wax ci benn interview boo jàngatee un peu la candidature de de de Karim Wade xam nga en deux mille dix neuf d' abord moom buñ ko en emprisonné fii après dañ ko exilé dafa dem. ci mm-hmm. ginnaaw. lañ ko tabb n'est-ce pas candidat xam nga loolu tamit foog ngeen sóoraale ko mm-hmm, mm-hmm. si ginnaawam lañ ko tabb candidat n'est-ce pas PDS donc c'est un général qui n'a jamais vu ses troupes mm-hmm. un général d'armée qui n'a jamais vu ses troupes loolu mooy dëgg voilà donc comment se fait-il que ce général-là nga bëgg vraiment mu am vraiment des résultats sur le terrain donc il pilote n'est-ce pas le PDS à partir du Qatar te dama gisoon ñu bare yoo xam ne dañuy demoon y compris même mi Mayoro mi xaw xaw ma kal kal ñëwaat na après. Ah, <laughs> voilà bi bi élection yi di jege. voilà c'est ça moom demoon naa demoon naa nee na ma day créer son son parti. parce que mu jëflante ak ak ma ma ak ñeneen ñooñu d'accord ñu si si doxalinam doxalinam donc euh, pour moi une fois de plus euh, PDS parti bu mag la xam nañu ko malchance bu mu am mooy am njiit boo xam ne daal nekk fi Sénégal mhm. te njiit boobu jéemal sax. nee na man Pérez jaral ma ma affronter n'est-ce pas le régime en place. Mhm. comment maanaam venir par force même ce que dañ koy arrêter n'est-ce pas à l'aéroport. c'est le courage. ah